fekk. Mhm. neen ñi waa Régis nag euh, nuñ ba bàyyi ni may tegee bët nii dañ ko bàyyi. ah teg nañ ma bët trop waaw <laughs> <laughs> c'est normal tey la bés bi donc comme ni ñu ko waxee rek remise u xar yi. ñoom mhm. nañ ko daal di xoolaat na roxee mhm. xar yi ñu joxe baax na lool. baax na te macha allah fu nekk Alima nee na woote nañu Zik Feeling. woote nañu jëm kanam. woote nañu tës nañu setaanaat loolu rek dellusiwaat. téléspectateurs yu Sen TV ñoo ko diggee woon ak yéen Zik FM la rajo leader moom moo delloo buum ca mooy mooy ga euh, yombal ay auditeurs am seen tabaski mu gën a neex baaxee leen ay xaru tabaski ni ñu ko waxee ñi nga xamee ni ñoo woote ci vingt 88 628 89 90 ñii ci tës la ñu leen tànn may leen xaru tabaski ñenn ñi ñu tànn leen ci Zik Feeling may leen xaru tabaski ba ci jëm kanam ki ci jëkk mu ngi tudd euh, Mama Sow moom ci tës la ñu ko tànn. maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen jaajëfal maa ngi leen di ñaanal daal ci kaw ci kanam. Pal moom ci Zik Feeling la woote. à maintes reprises woot naa la troisième fois nag si laa woote bon ma ma si sa Sali Khoule si la ma Sali woo. parce que Guèye moom dafa woote euh, ci euh, heure euh, tës ci la ñu tànn numéro may ko xaru tabaski. waaw yaa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm sant yàlla bu baax. dafa mel ni Zik FM yombal na la sa sa tabaski de. yombal na ma ko moom yombal na ma ko. di leen ñaanal bés bu ne léegi nag ma jàpp ci test bi rek daal di woote. chaque jour nag dama daan woote chaque événement damay woote mais yàlla mu ngi koy doog a dogal. keneen koo xam ne dafa woote ci 88 628 89 90 ci Zik Feeling la woote ñu tànn numéro may ko xaru tabaski mu di Mamadou Seydi moom itam mu ñëw jël xaru tabaski Zik FM moo ko may. Mamadou maa ngi lay ziar sa xaru tabaski mu ngi nii Zik FM rajo cadeau moom moo la may xaru tabaski ci Zik nga woote woon noo gisee li ñu def. waaw sant yàlla wér wér yàlla na nekk euh, lu yàgg yàgg seen diggante yàlla may leen wéggeel ma gudd fan ko Ousmane ziare naa la. dara nañ la ziar ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa sant yàlla bu baax. noo gisee li la Zik defal. kontaan nañ ci torop euh, di leen ñaanal ngeen yàgg di ko def ci at bu nekk. di leen ñaanal yokk ba yëg ko daal. Ibrahima Daffé moom waxtu tës la woote ñu may ko xaru tabaski. sukkuraan la ñu mën a wax rek euh, li ñu mën a wax euh, ñu leen di gërëm di leen sant. 88 628 89 90 ci euh, Zik FM heure tës mën ngeen woote ngeen jot ñu ngeen ñàkk ñoo jot waxtu bu nekk mën nañ leen a tànn daat leen di may xaru tabaski moo xam tës moo xam Zik Feeling moo xam jëm kanam ñii ñëpp nekk ay auditeurs u Zik FM lañ dañoo tànn seen ay numéro may leen xaru tabaski di leen ñaanal tabaski jàmm ak salaam ak Zik FM tabaski jotee waaw ba nu ren di xar yo ba ñëpp ñaanal keroog ci bis Antonio non ko